ci wàllum xeet bu boobaa tamit mën na fa am te nag image su Sonko boobaa mën naa a ba tey ci journal bi ci xëlim ak Assane Samba nee na Sonko dafay wéy nag di réclamer li nga xam ne mooy ab leadership national noonu la ko Ousmane Sonko doxalee te Assane Samba li mu gis daal loolee maanaam ab dogal la boo xam ne bu baax la ci lu jëm ci wàllum politique yéen a kaay gi di Vox Populi nee na njiitu réew mi di président Macky Sall xam ne moom la ñu dëgmal ci diwaanu Ndakaaru Abdoulaye Diouf a kaay gi di enquête nee na Amadou Ba a kaay gi ñu xibaar naan ñu Abdoulaye Diouf Sarr l'homme du président déception bu mag a mag la waa Parcelles Assainies am ndax askan wi nga xam ne ñoo yeewoo parcelle am na si ñoo xam ne ay farandooy Amadou Ba bi déggee ñu ne Abdoulaye Diouf Sarr la ñu tabb maanaam mer nañu ba maara day taali am nañu mbetteel yéene kaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan ñu élection locale yi ñu dégmal duyoo diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na les alliés li mu di xibaar daal nee na Macky Sall maanaam ba ñu set weccee ndax mbooleem li nga xamante ne lu baax la ci élection locale yi ci ay département ak ci ay mairie Macky Sall ak waa APR dañu ko ngar dajo alliés yi bàyyee lu ñu leen dara yéen a kaay gi de la sax xëy duñu xibar naan ñu en tout cas daal li am ba de Sall soo muy tuule Benno Bokk Yaakaar ci boppam mooy jekk-jekk rek daal di exploser maanaam daal di xaar ndax bëri na ñu nekk ci biir Benno ñoo xam ne daan nañu déposer seeni caution yéen a kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy alliés yi maanaam ñi lëngoo ak président Macky Sall jamono ji am na ñenn si ñoom ñoo xam ne dañu dañoo fipp ba maara de taale mer na ndax nag ñoom dañoo jàpp ne nii nga xam ne moom la waa APR doxalee maanaam ngar daajoo lépp du yoon ñoom du ñu ko nangul tey du ñu ko nangoo lekk Seydou Diouf moom nag nee na dafay ber nag liste su boppam ca diwaanu Rufisque ndax dañu koo zappe yéenekaay gi du Source A xëy duñu xibaar naan ñu ca diwaanu Parcelles Assainies président Macky Sall Moussa la daal di tànn yéenekaay gi nee na sa diwaanu Diourbel Dame Diop ak Moustapha Guèye Dame Diop mooy dem sa commune ba Moustapha Guèye ca département ba yéenekaay gi nee na Talla Sylla dañu koo zappe sa diwaanu Thiès moo tax moom taala nee na dana ber liste boppam yéen kaay gi nee na ca diwaanu Louga président Macky Sall Moustapha Diop la ngir nag mu daal di jiitewaat liste benn bokk yaakaar ca commune ba loolee nag daal nay tax Mamour Diallo borom 94 milliards yi daal di mer ba maara détaillé ak ña ànd ak Mamour Diallo ñoom nee nañu daal danañu ber seen liste parallèle la gi xëy dañu ñu xam ne mooy Birame Faye ak gi xëy dañu xibaar naan ñu sa diwaanu Thiès Yankhoba Diattara la ñu fa samp waaye waaye nag Aïda Sow Diawara mi nga xam ne parti socialiste la bokk nekk sa Golf Sud moom dañ koo jàppee moo tax socialiste yi nga xam ne ñoo nekk Golf Sud ñoom nag mer nañu ba maara détaillé ndax ñoom nee nañu dal am na loo xam ne xel ci boppam moo ko nanguwul yéen a kaay gi de la témoin nee na sa diwaanu Ziguinchor diggante Ousmane Sonko ak Abdoulaye Balde léegi tey mbir mi leer ndax ñoom ñaar ñoo ngay waxtaan te jamono ji mën na ñoo wax ne lépp gut na yéen kaay gi de Le Quotidien nee na li ñu si jaaxal rek mooy Abdoulaye Balde ab li sa boppam lay ber yéen a kaay gi di réew mi Quotidien nee na en tout cas li am ba des sala mooy Abdoulaye Baldé déposé na caution ma yéen a kaay gi di l'info nee na parti socialiste ak APR jamono ji ñoom ñaar kenn ku nekk ma ngi joué yéen a kaay di l'observateur nee nag ca diwaanu Podor ba léegi nii président Macky Sall waxagul lu leer ca diwaanu Podor diggante Aïssata Tall Sall ak ki nga xam ne mooy Racine Sy yéen a kaay di Vox Populi xëy yóbbu ñu diwaanu Mbacké nee na nag foofee daal ci commune bi Gallo Ba la ñu tànn Idrissa Seck ni ki démb janoon nañu ak taskatu xabaar yi nee nañu ànd ñu benn yoon ci Matar Diop mi nga xam ne moom lañ fa tabb yéene kaay di réew ko di cee xëy di wax ci loyaas bu seer bi nga xam ne jégg na dayoo ak ñi nga xam ne ñooy waa SOS consommateur ak asku seen ñoom nag ñoo ngi sàkku ay Aziz ñu daal ko si defa ngir nag taxawal ab observatoire boo xam ne mooy jubbanti lu jëm ci wàllum secteur bi yéene kaay di 24 heures Guy Marius Sagna